أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من wa الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي اغفر لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen siyaare bu baax di jiite si nuyoo bi ak siyaare bi Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla na suñu borom yàlla yàggal ko suñ kanam te wéral ko kàttanal ko ba noonu la ñu nuyoo bu baax Serigne Cheikh Jëmb faal xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ñaanal yàlla suñu suñ borom yàlla yàggal ko suñ kanam te wéral ko ba yëpp mën koo matale si barke maam Cheikh Ibrahima Fall. di nuyu bu baax Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abbas di ko ñaanal suñ borom yàlla defal ko tawféex ak taysiir si barke Cheikhul Khadim ba yéenam yëpp mën koo jooxee te ànd ko moom si barke Sëñ Tuubaa waaye noonu la ñuy nuyoo bu baax suñu jëwriñ si liggéey bi muy Serigne Jili Mbacke di ko ñaanal suñ borom yàlla defal ko jàmm ak xéewal si barke Cheikhul Khadim Euh, tey jii nag ñu nekk fii si kër Serigne Moustapha Mbacké Abbas di waajal lu jëm si mbalem Porokhane bi nga xam ne dimaas bii di ñëw la incha allah ñu fas yéene see def nag euh, ay waxtaan yoo xamante ni dama koo seq ak samay gan ku mel ni jëwriñ Pape Seck ak suñu baay baay Abdou Diop waaye tamit euh, jëwriñ Serigne Mbacké Gaye waaye xam naa bala ñuy sori rek dañ leen di jox nu nuyoo incha allah bu ko defee ñu soog a dugg si waxtaan wi baay Abdou ñu bàyyi la nga nuyoo. aouzu billahi wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke sëriñ Tuubaa ñu ngi nuyu mbooloo mi di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di jiital ci nuyoo bi sun sang sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla yàlla yàggal ko fi te wéral ko te ñu ànd kook moom di barakati sayyidul wujud di nuyu bu baax suñ sang sëriñ seex Jëmb Fall xalifa général de Baye Fall di ko siyaar di ñaan sa borom yàggal ko fi ànd kook moom ci barke yonent bi tam ànd ak wér liggéey sëriñ Touba di nuyu baax suñu jëwriñ yi nga xam ni ñoom lañu àndal ci liggéey bii nga xam ne moo ñu fi dajale di Cheikh Moustapha Mbacke moom sëriñ Abbas Mbacke di ko siyaar di ko ñaanal fan wu gudd ànd ak wér di ko ñaanal tawfeex tay sir di nuyu baax jëwriñam ji nga xam ni moom la teg ci kanam muy sëriñ Jili Mbacke moom itam ka salika di ko ñaanal bu baax fan wu gudd ànd ak wér bu ànd ak sutura ak teranga tay sir ak xéewal yu bari ci barke yonent bi barke sëñ Tuubaa di nuyu bokki taalibe yi ñu àndal liggéey bi yëpp bokk ñoom liggéey bi sëñ Modou Ndiaye suñ Pape Seck ak sëñ Mbacke géey ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seqal liggéey bi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaar di leen barwaa <coughs> jërëjëf euh, Baye Abdou macha allah nuyoo bi matale na yàlla na ko suñu borom yàlla nangu te boole ñu ko si barke Cheikhul Khadim kon jëwriñ Pape ñu bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakatu ñoo ngi nuyu bokki taalibe yeeg bokki yëpp Euh, di jiital ci nuyu beeg siyaar bi di ko jiital ci mu Mountakha Mbacké Bachir di ñaan yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko waaye noonu lañ koy ñaanee Serigne Cheikh Jëmb Fall mu yàgg toog jotaayu maamam bi mu toog te yàlla may kattan bu ci toogee barke Cheikhul Khadim waaye noonu la ñuy suñu suñu wëllëre suñu jëwriñ suñu lépp Cheikh mu du mu Moustapha Mbacké mu Serigne Abbas ñoo ngi koy ziar baax di ko nuyu waaye di nuyu rakam ju baax ji Serigne Djili Mbacké Abdoul Khadir nga xam ni moom wax dëgg yàlla ku jotal la jëmale ci ñun wax dëgg yàlla ñoo ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di ñaanal comme ni ko baab di waxee rek bépp jëwriñ boo xam ne séq nañoo liggéey bi ñoo ngi lay nuyu di la sant di la ñaanal yàlla yàlla may ñu fan gudd ànd ak wér te ñàgg a teewu liggéey bu sell bi ci barke allah nuyoo bi matale na mbokk yi ni leen ko waxe woon rek dañuy daal di door waxtaan wi ànd kook uh, gan ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal muy jëwriñ Pape Seck ak uh, suñu baay baay Abdou Diop waaye ak uh, suñu jëwriñ Serigne Mbacke Gueye xam naa jëwriñ Pape si yow la ñuy doore ndax mbir loo gis muy dox rek am na taarix am na fu mu tàmbalee ba egg fa mu Euh, mbalem poroxaan kenn gënula koo xam ndax euh, diirub ba muy door ba léegi yaa ngi ci waaye nag ñu bëgg nga baaxee ñu euh, fan la mbale mi doore bañ maanaam bañ koy door nañ lañ ko nan lañ ko doore woon nan la ko sëriñ bi doore woon waaye sëñ bi ñu bokk sant yàlla ñun ñëpp ci tawféex ju rëy jooju suñu borom defal ñu ko dama wax ne sax tawféex ju jëm ci ñun waaye jëm ci mbooloo mi yëpp la ndax wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk xam ne ne kër sëriñ bi moom ku ko miin xam ne ki fi njëkk ki mujj ci moom moo yem ci moom liggéey bi liggéey bu yàlla gërëm la ndax boroom liggéey bii liggéey liggéey bi doon ko liggéey sëñ Tuubaa ba mu koy liggéey benn yéene rek la ci amoon mooy fexe ba sëñ Tuubaa xam ne moom jëwrinam la sëtam la léppam la waaye dafa war a laxasaay du ko liggéey mooy fexe ba mag ñu baax ne nañ meloon mooy fexe ba doonub taalibe taalibe sëñ Tuubaa di ko liggéeyal yéene ju jooju rek la amoon ci ci liggéey bi ci mbala mi bi mu koy xalaat mën nañu wax ne 2008 la la ko commencé waaye nag cosaan lu wér la ndax tax cosaan lu wér dafa fekk ay mbokkam ay waajur yi nga xam ne ñoo ko meññ kenn ku ci nekk laxasaay takk sa ndigg fa seenee liggéeyal sëñ Tuubaa mu xam ne moom kon moom moom doomi taalibe la waaye jëmm la joo xam ne nii ak taalibe xam yeewu na ci bu baax ndax yee nañ ko ci ndax jàngal nañ ko yee nañ ko yar nañ ko mu fexe ba xam ne nii ni Serigne tubaa mi nga xam ne dañuy tudd di ko tudd mënuñu koo defal dara ci ko suuf lu laxasaayu di ko liggéeyal mu laxasaayu teel a laxasaayu am yéene ju rëy ne damay liggéeyal Sëñ Tuubaa mm-hmm. ànd kook waa Kawlax gi yëpp loolu nag mooy tawféex gi ci nekk mm-hmm. ndax mënoon na ko def yemale ko ci boppam wala mu yemale ko ci ay bokki boppam mm-hmm. waaye daa laxasaayu ne waa Kawlax yëpp laa bëgg a ñu liggéeyal Sëñ Tuubaa loolu mooy sababu mbala mi wax ne 2008 la commencé waaye daf ko bëgg a ak waa Kawlax yëpp bi mu ko xalaatee bi koy xalaat nag wax dëgg yàlla ba wéetoon na ca lool ndax liggéey bu yàlla nangu moo noonu boo ko dee xalaat yow kese lay doon waaye boo demee ba yiw ne ci yokkute ne ci da ko boo bëggee mu xat mu yaatu dina yaatu ndax loolu yàlla da ko nangu ba pare te liggéey bi ku ne xam ne ni sëñ tubaa nangu na ko te lu sëñ tubaa nangu yàlla nangu na ko yonent bi nangu ko ko nangu te ba mu ciy xalaat wax dëgg yàlla loo xam ne ci benn camion rek lu jóge woon alaaji amono aan di ko joxe ak alaaji biram fall mii nga xam ne nii dañoo dëkk ak moom alaaji amono aan di taalibi Cheikh Mountakha amoon yéen ju ci mbala mi suñ mosaana ñëw di ànd ak moom sëñ bi dem di jëli ci moom camion bi tax na camion bu leen neexee sax at mu jot bu leen xalaat ndax xalaat leen ne dama leen koy jox ndax maag yéen ñoo bokk yéene ci sëriñ bi maag yéen ñoo bokk pas-pas ci sëriñ bi maag yéen ñoo bokk li ngeen di def nii ñun ngeen koy defal waaw am yitte ju rëy du tee sax sëñ bi daan ko doon booleeg alaaji amadou an di ko booleeg jëw ni nekk fi naa ne na ngeen fexe ba jàppale sëñ Moussa ci mbale mi booba sëriñ bi sëriñ Cheikh Mamadou Mountakha booba toogagul toogagul toogagul doon jataayu sëñ Tuubaa booba jataayu sëñ Basiru la toog waaye yitte jim co jam ko joxoon démb moom la ko joxaat tey mooy wan na ko man démb na ma meloon ak yow ci liggéey bi noonu laa mel ak yow tey li ci yokkeeku kay mooy won adduna yëpp ne liggéey bi liggéey bu yàlla barkeel la bépp jëwriñ foo mën a bàyyi ko mu bàyyi xel ne na nga bàyyi xel Cheikh Amadou Moustapha te xam ne ku ku dogula ci bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa ku dogula ko pas-pas la bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa loolu nag yitte jooju nu fi waay mel ci yoonu mu rek noonu moo la ko def kon nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may fan gudd ànd ak ba li mu yéene ci Kaolack gi yéene ko ci liggéey bi suñu borom may ko kattan mu def ko mm-hmm. tànd ko jëwrinam yu baax yi ak mbokkam yi nga xam ne wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk yow mm-hmm. bàyyi nga la nga doon def léegi ñëw jàpp ci liggéey bi xam ne liggéey bi liggéey bu si yàlla gërëm la mm-hmm. liggéey bi suñ tubaa gërëm la loolu daal mooy sababu mbale mooy yéene ju rëy xam ne mag ñi nii rek lañ meloon mooy fexee liggéeyal sëñ Tuubaa takkaayu mu teel takkaayu loolu nag ay waajuram lañ wax ne ci la ko jëlee ndax su fekkoon ay waajuram toog tooginu comme ni ni askan wi mel. Mm-hmm. mooy toog rek fas yéene lu ñëw nga nga xam ne ah, wax dëgg yàlla da ngaa war a laaj àddee ndax loolu liggéeyal nañ leen ko. Mm-hmm. waaye boo cee toftalee nag doonub taalibe takk sa ndigg mm-hmm. loolu da ngay def li gënal sëñ Tuubaa te mag ñu baax ñi fi newoon muy doomi sëñ Tuubaa yeeg sëtam yu baax yi ku fi ne rek la nga am la la ko may loolu moo la ko may sëñ Usmaan nag teel la xasaay loolu ak sax jërëjëf euh, sëñ Pape muy lu am am solo kon mën nañoo jàpp ne mbale mi bi muy tàmbali euh, fu sew la tàmbalee oh. mooy benn camion la tàmbalee te dañ koo abaloon sax sëñ bi oh. waaye nag si bëggub sëñ bi ak tamit passeefam ak pas-pasam dem ba mbale mi tey dem bañ naan dañuy yóbbu quarante biche wala lu ko ëpp kon xam nañ ne liggéey bi sëriñ Touba nangu na ko ndax oh. bokk na si li sëriñ bi di wax euh, ne sëriñ Saliou daan na wax ne nangu liggéey bu suñ borom nangu xool leen liggéey ba na muy doxee mm-hmm. kon man ñoo jàpp ne liggéey bi liggéey bu suñu borom nangu la mm-hmm. léegi ginnaaw bu ñu la laajee mm-hmm. fa mbale mi doore woon ba nga wax ñu ko léegi tolluwaayu mbale mi fi mu toll nii boo ñu ko doon euh, defal bilan fan la mbale mi toll fi mu toll nii léegi moom dañu wax ne alhamdulilah rabbil alamin rek lañ ciy teg ba tey foofu ndax liggéey bi neexutut a xayma mbale mi ku xool matériel yi nga xam ne ñoo fi ñëw bum te ay bokki taalibe rek indi ko fi at pas-pas bi taalibe yi volonté wu am yéene dem bale ji poroxaan ndax li ci am li ci gën a am solo ci xayma mooy am yéene ne damay jëfal Sëriñ Tuubaa fekk ci pas boo xam ne ni pas-pas bi sëriñ bi am dem na moom ba xam ne pas bi taaliba yi am fekk na bosom sax bëgg koo jaaxal ndax li tax mooy kenn ku ci nekk boo déggee mbale mi ba mbale mi yegg ci yow bu ñu la ko gaaralee leeral la ko ba mu ba mu dugg ci yow doom lu yéene lu jëfal mbale mi loo xam ne day kawe njor te loolu mooy jëfal Sëñ Tuubaa rek mm-hmm. loolu loolu loolu mooy mooy li nga xam ne mag ñu baax ñi moom lañ def la may wax rek te wax dëgg yàlla mbale mi ku ne xam ne ne léegi yaatu na lool lool lool mm-hmm. bu ñu koy soog a def sëriñ bi ci yërmandeem ci mbaaxam mm-hmm. ay ceebu jën la doon def tey dem nañ ba toll foo xam ne nii li ñuy def kenn mënu koo xayma ci ci ci ci ci wàllu lu ci bari daal dafa bari ay yokk-yokk yoo xam ne nii ah, taalibe yi rek ñoo ko yokk te wax dëgg yàlla loolu tamit mooy li nga wax rek ah, liggéey bu yàlla nangu la hmm. liggéey bu yàlla nangu nag dina jëfee xayma ci ne nii la nii la toll dayo bi ne la toll ndax dayo bi day gën a yokku rek hmm. ndax ki ñu koy jëfal neex na ko hmm. te nangu na ko tey tekki te mooy Sëñ Tuubaa te tey ko wax dëgg yàlla ku ne xam ne ne barki démb mi ngi may wax sax na ma bi muy déggante sëriñ bi ci wàll lu jëm ci lii sëriñ bi moom daf ko def sa benn xaal mooy bu fekkoon da ko jox ndigal li bara moom moom lu mun taxaa ba pare taxaw kon kon na ko mën nga ko doxal kon dana ca doxal dana ko doxal ndax sëñ Tuubaa dafa neex liggéeyal ndax sëñ tubaa bu lay liggéey dalay jox ay jumtukaay yoo liggéey wala boole laak ñoo àndal dem liggéeyal te wax dëgg yàlla loolu xeeñ na ci bu baax a baax am na ci tamit bu wér a wér sëñ Tuubaa boole na ko ay jëwriñ yu mat jëwriñ na ko taalibe yu am dogu ci liggéey bi am yéene yokk liggéey bi bu ci boolee nag sëriñ bi wool ko boppam di ko soñ ci liggéey bi di ko wan na ko liggéey bi kat maa ngi sa ginnaaw biir maa ngi sa ginnaaw biti mhm. loolu xaal la ko def at jëw ni ci nekkee ku ko ci dégg rek da ngaa bég mhm. te loolu mooy tawfiix gi ñu sëriñ bi defal ci liggéey bi mhm. kon ñoo ngi ñaan toog bii mu toog di sëñ Tuubaa yàlla na yàgg te wér waaye liggéey bi daal xalaat nañ ne dañ dem ba dootuñu mën a def benn xayma bu jëm ci lu jëm ci liggéey bi ndax taaliba yi dogg gi dogg gi dogg gi ñu am ci liggéey bi ak yéene ji ñu am ci liggéey bi sëñ moo daal li ma la mën a wax ci loolu mooy yéene ji nga xam ne moo am ci liggéey bi nañ ñaan yàlla fekke ak tal waaye damay ragal ne sax wax dëgg yàlla lii ku ko dégg ndax damay bale ji poroxaan mm-hmm. bi mu koy xalaat booba kenn ku ci nekk yaa ngi sor ku toog mm-hmm. waaye bi mu demee ba leer ci bopp murid yi nag kenn ku ci nekk bëgg ngaa bale ji mm-hmm. lu ci nit dégg rek noonu nga noonu noonu gisee ci mooy booba bi mu koy def sëriñ Mountakha Cheikh Mamadou Bachir la hmm. moom ci moom yéen a juree jëlee ko ci waajuram xam ne dafa fekk waajuram laxasaayu hmm. topp ci kanam Cheikh hmm. mu teg tànkam mu teg fa mu fekk na yàlla yokkee ay leeram la sëriñ bi di liggéey lépp ci soxna Faati Dieng la jógee waaye li ko li ko ko li mooy am yéen a juree ci sëriñ Mountakha am yéen a juree muy bëgg kii mooy sëñ Tuubaa kon soxna Fatou Dieng yàgg naa junj ne sëñ Muntaxa mooy sëñ Tuubaa ndax pas-pas bu rafet bu mu amoon diggante mag moom mhm. fexe ba naap ay doomam ak njabootam gépp mhm. ne leen fexe ba teelal teelu gindee ko Cheikh moom du mhm. mu teel a gindee xam ne kii ku ñuy ku la ku ñuy laxasaayul la ndax ak njub ak mbaax ak sell sëñ Muntaxa kon ku ci nekk fu fu loolu nekk rek mhm. bu yëgsee sëñ Muntaxa da ngay xam ne day mel ni mooy borom kon daal liggéey bi neexatut a xayma mhm. neexatut a def ay ay kii te luñ gën a romb at mu ñëw day gën a yokku day kii ndax at mi li ñu commencé ay bokki taalibe yu ñu wax naan ñaari bokki taalibe ñoo indee gum lii hmm. te am na ay bagages a bari bu baax a baax a baax ak ça jërëjëf euh, sëñ Pape muy lu am euh, na nga waxee njaal benn ji ku ko dégg ak ñu xool matériel yi nga xam ne moo nekk si kër gi si jamono ji ñu toll te mbale mi des luy tollook ñetti fan hmm. kon loolu day wane ne euh, mbale mi am na fu mu tàmbalee waaye it am na fu mu toll si hmm. dayoo si jamono ji ñu toll nii te mooy nit ñi bëgg nañ ko nit ñi nangu nañ ko te it nangu nañ see def seenu ñàq waaye it nangu nañu ñu bu bale jotee yi tamit ñu jóg dem bale ji mm. ndax ñeen fukki biis du ay caaxaan te ñeen fukki biis yi dañ koo xayma waaye saa su nekk la dem mm, si ay oto yu ndaw mm. ak ñeneen ñoo xam ne dañuy dégg ñëw kenn mënu leen a xayma kon loolu lu am solo la kon daal dañuy jaajëfal bu baax sëñ Moustapha te koy ñaanal suñu borom yàlla defal ko jàmm ak xéewal si barke Cheikhul Khadim Baye Abdou xam naa dañuy ñëw si yow ndax ku ne mbale ne set te euh, l'islam tamit kenn bu fekkee ne dafa aajoo sangu di nga ko def waaye tamit barab ba ngay koy defee yi tamit day sell nga soog koo mën a def euh, Serigne Moustapha si ak gisam mu gis ne poroxaan ñëpp fay daje te dafa ko war a setal ba nga xamante ni pakk buy gaañ nit du fa am waaye tamit ku nekk béréb tamit ba waxtu jot la it di nga di nga mën a lal julli ndax set goo xamante ni daf koy set ak yu demee noonu kon euh, dañuy bëgg nga indil nu euh, njariñ yi nga xamante ni moom moo nekk si set. waaw alhamdulilah xew. ci àdduna bépp dégg nañ ko lu xew bis bu màgg bu tedd bu yiw xewe ci ku tedd ku yiw di jigéen joo xam ne nii bi yàlla bindee asamaan ak suuf ak léegi nun musunoo gis fenn jigéen ju mel ni moom musunoo dégg fenn it jigéen ju mel ni moom la ko maam mbay jaxate doon wax ni jaaraa ki dooma ma am jaaraama ak jërëjëf moo jiitu soxna yi doomam jiitu kuy tubayu mhm. kuy soxna jaaraa la gën mboolem ku sol tuba it bàmbaa la gën fopp wax ji wér gi dem na dayoo mhm. kon lu xew màggalu poroxaan mhm. ni nga ko waxee léegi nag lislaam li ci gënal yàlla mhm. mooy julli te julli bi nga koy defit liñ la tegal ci ay sart mu war ci jiitu mooy set nanga set ci saw yaram set ci yére yi ngay sol set ci baram ba nga koy defee kon booy jaamu yàlla li ci jiitu mooy set kon ñun bu ñu yàlla dimbulee ba moo Modou Moustapha bisub soxna jaar bii yàlla séddi ko ci sëñ taxaa xamal ko ni bu ñëwatee li jiitu ci lislaam mooy set nga dem setal dëkk ba ci zahir ak ci baatin mu ànd ko mbooloo mépp kon kenn ku ne xam na ni set ginnaaw bi mu baaxee ci ci lislaam itam noonu la baaxee ci wér-gu-yaram ndax mel ni ñu yor wàllu wér-gu-yaram jamono bu ne ñu di ko soññee ci set kon set kenn ku nekk xam na ni moo jëkk moo mujj kon loolu la ñuy waajal pour dem bis boobu ñu dem setal dëkk ba mhm. set gi nag buñ koy def nañ njëkki set gi ci suñ bopp mhm. ci suñ xol yi mhm. ci suñ cëri yi àndante laaxante biir buñ demee kenn ku nekk jàpp ni bis bi ma poroxaan gi man dong maa ko waroon a bale bu ko defee kon la ñu bëgg lépp dana am ngir yàlla ak yonent bi li ci jiitu nag mooy yar ak teggin ni ngeen ko waxee nag mbirum sëñ tubaa nag la ci Cheikh Ibra waxoon rek mooy di ci nekk mhm. bërigo la ci mbartal mhm. ku ci teg sa loxo mu dem ku tegul mu dem mhm. mu ne ah doom nan ci teg suñu loxo ndax ñu jiiñ ñu dox gi kon mbir miitim kanam rek lay jëm du jëm gannaaw mukk yoonu mu rek nag loolu sax waratu cee yéeme ndax kenn ku nekk xam na ni Cheikh Ibra Fall bi muy ñëw Mbàkke Kajoor fekk Sëriñ Tuubaa fanweer ak juróom-ñeent la fa fekkoon mu ñëw muy ñeent fukk léegi tey adduna bépp laay wax ni boo fa génne woon murit mu jeex mhm. kon kenn ku ne xam na ni yoonu mu léppam kanam la mhm. ñu ngi wax ñeen fukki biis waaye yaakaar naa ni téeméeri biis sax dana ko ëpp mhm. xanaa loolu suñ xayma la kon te lépp nag setali dëkk ba bu demee kenn ku nekk ci buntu dëkk ba ba fa dëkk ba jeexee kenn ku nekk bul weesu dara mbuus bu ko weesu bul weesu bant lépp luñ mën ci setal dëkk ba ñu góorgóorlu ci ndax kat cër bu leen ñu jox cër bii nu sëñ Muntaxa jox kat mhm. yàgg nañ ci Kaolack mhm. bari na kilifa yu fi jiitu sëñ Moustapha mhm. te amuñu ko kon bu ko ko yàlla jagleele mu ànd koog nun sant yàlla la tey gërëm yonent bi tey gërëm sëñ Moustapha bu baax a baax di gërëm it sëñ Muntaxa mi nga xam ni moo nu jagleel loolu jërëjëf euh, Baye Abdou euh, ñu ngi santaat bu baax a baax si leeral gu leer googu nga indi rawatina si wàllu set ndax lislaam euh, ku ne lislaam na set te dara mënta dem si lislaam te set àndu si kon macha allah loolu day am am solo ndax ku ko dégg dina xam ne pas-pas bi sëriñ bi am ba bëgg setal poroxaan dafa am lu baree bare baree bare loo xamante ni daf see làmb si ay njëriñ waaye tamit ba Abdou danga ngaa bokk euh, si ñi nga xamante ne ni ñoo gën a féete kaw si liggéey bi daanaka yi tamit ay tuut tànk ñoo ëpp si ñi nga xamante ni dañuy dem di liggéey te tamit la euh, mag ñi di wax rek mag jar naa bàyyi si ab dëkk kon dañoo bëggoon nga indil ñu ab soññe si ñi nga xamante ni dañoo war a dem bala ji poroxaan wan melokaan dañu war a yor ak it bu demee poroxaan nan nañ fa war a nekkee ba keroog ñuy dellu si waat incha allah. waaw jërëjëf sëñ Modou ñuy parafito it di jéglu luñ waroon a wax te waxuñu ko muy di ñuy suñuy kilifa suñuy jëwri ñi nga xam ni. ñoo ñu yebal ci barab bi di suñ jëwri ni daayira di soxna ak Mbàkke Ndooy ak boroom këram Serigne Cheikh Kebe mi nga xam ne ñun ñëpp moo ñu boole coiffé yilif ñi kuy dem Poroxaan li nga war a yóbbu mooy yar ak teggin mooy li ci jiitu xam ni yoonu murit yar ak teggin lañ ko xame bu ko defee kenn ku nekk bu la mbambax yóbbu bu la yuuxoo ci oto yóbbu bu la fattooñ yóbbu bu fa yàq yi fi jàmbur yóbbu mm-hmm. kenn ku ne boo demee na nga xam ni yàllaa ngi lay gis yonent baa ngi lay gis sëriñ tubaa mi ñuy liggéeyal mag nuy gis mm-hmm. soxna jaara mi ñuy liggéeyal mag nuy gis mm-hmm. bu ko defee kenn ku nekk bu foo toll ci mbale ma na nga jàpp ni sëriñ tubaa ngi ci sa gannaaw soxna jaara ngi ci sa gannaaw ñu góor góor lu ci ci lépp luñ man rawatina nag matériel bii nga xam ne ni ngeen ko waxee ay bokki taalibe ñoo ko fi indi ngir ñu liggéeyale ñu dem defara jekko bés ba loolu nag laa gëm ni mooy barkeelu mhm. fab liggéey bu tol nii mhm. joxe ko ne nañ ko bal nañ ko balee ji soxna jaara mhm. loolu mooy barkeelu waaye bale ba pare yóbbu rado ba nga yoroon wala nga yóbbu bale ga nga yoroon wala nga yóbbu furset ba nga yoroon naan dama koy barkeeloo loolu tuddul barkeelu kon barab bi lii kenn ku nekk jàppal ne yaa ko war a jënd andi ko fi soo ci paree am na jëwriñ yoo xam ne ñu ngi ci suñ gannaaw ñu jox leen ko ñu dajalewaat ko bu ëllëgee ñu duñ ci sonn ndax kat mbale mi egg na foo xam ne waxuma poroxaan waaye waroon nañ tey képp ku soxla matériel bale ci ri ci dëkk bii ñu ne la demal kër sëñ Moustapha soo ñëwee jël ko fi léggéey ci la ngay liggéey indiwaat ko fi mhm. waaye bale ba pare nag fab la nga bale woon yóbbu mhm. naan dama koy barkeeloo bokkul ci taalibe mhm. kon nañ góorgóorlu bu baax li ci war daal mooy ab yar ak i teggin ak paste ñu góor góorgóorlu bu baax a baax bi tam ci teel dem gi incha rabbi kenn ku nekk tam oto bu ñu leen yéeg ja na nga cee yéeg ndax sëñ Modou doon na ko wax keroog suñ benn réunion biis bi ak njaganjaay bi yëpp poroxaan lañ jëm mhm. ku war a dox dem mhm. suñ la tegalee oto doonaan ci bii lay dugg mhm. ak bii lay dugg te kenn ku nekk ci ñun daa waroon a xëy dox ndax li ma lay wax màggalu Tuubaa sëñ seex say mbàkke mhm. suñ jëwriñ daay ci Ziguinchor da ko ni ñaanal bokki taalibe yi xéewal guñ màggale ji mhm. mu ne ko ku tëlee màggale newu ci ndax ku ci amul paas rek xëyal dox foofu la la màggal gi war a jaral mhm. mbale miitim nag war na ñoo jaral lu ëpp loolu koo jàppoon ni nag soo fekkul oto yi da ngaa war a dox dem poroxaan dootoo taamu naan oto bii laay dugg ak bee laay dugg buñ la taajalee jag jaay dugal buñ la nee yéegal ci sareet bi yéegal buñ la nee do doxal ndax buñ xoolee suñ jëw ni yii sant Mbàkke war ngaa góorgóorluwaat bu baax a baax kon daal maa ngi soññu taalibe yëpp mm-hmm. ci ànd ak yar mm-hmm. ak teggin te mm-hmm. déglu li nga xam ne nii mooy ndigal yi nga xam ne moom lañ joxe kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp commission yi kenn ku ci nekk luñ la wax na ko def te jàpp ni Serigne Moustapha moo la ko wax. Mm. waaye bu kenn ni sëñ Modou Fudeen mii kat waruma commandé ndax andiwuma fi. Mm. déedéet mm. du noonu. kenn ku nekk daal na nga déglu ndigal te ba tere soo fa bëggee jariñu. ba kàddu di dégg. jërëjëf euh, Baye Abdou muy la ma am solo rawatina ni nga ko tënkee muy yar ak teggin sëñ Baye Jaxate daan na ko wax amub yaray tax ñu fab nit ne tegg ca kaw waaye ñàkkub yi tax ñu teggee nit sa kow di ko caw euh, sëñ Sidi Muxtaar daan na wax naan ku yar wut doo yor dara waaye ku teggi dara kon day baax kuy dem sa mbala mi tamit nga làmboo ay teggin akub yar boo xamante ne nii doo fa yàq dara te it na ko sëriñ ba bëggee di nga ko fa defee te mooy boo demee nga nekk sa liggéey ba matériel yi tamit nga bàyyi si xel euh, ba benn matériel du réer ndax tamit dajale matériel bu toll nii te bu ne ngay wutiwaat yeneen matériel loolu tamit sëñ bi bëggew ko noonu kon daal euh, soññ bu am am solo nga def yàlla na suñ borom yàlla defal ñu ak dégg ak ak topp si barke Cheikhul Khadim sëñ Mbacke kon euh, xam naa si yow la ñuy ñëw dañ lay bàyyi nga nuyoo. salaamaaleykum mbooloo te tàmbale siyaar bi Cheikh Mountakha bi sëñ Xaadimu Rasuul teg ki sëñ Cheikh Jëmm Fall mi fi siyaar nekkal Cheikh Ibrahima Fall ci teg Cheikh Moustapha Mbacké mi suñ jëriñ ci suñ liggéey bi ci booleeg sëñ Jiiri Mbacké mi nga xam ne moom lañ sëñ Moussa boole mu yore liggéey bépp moom di siyaare mboole mbokki taalibe yi ñu àndal yëpp li tàmbale ci sëñ Modou Ndiaye Baye Modou Ndiaye ak ñoom sëñ Pape Seck ñoom ñëpp ak boole mboole mbokki taalibe yi toog rek ñoo ngi leen di siyaare di leen màggal te di leen commencé di ko yàlla na ko Serigne Touba yeggaleel ci barke bi Cheikh Ahmadoul Khadim jërë ngeen jëf Serigne Modou jërëjëf euh, Baye Serigne ñu ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax di la delloo ziar bu baax euh, ak nuyoo bu matala bi macha allah euh, Baye Serigne yow fi ñuy tàmbale ak yow mooy bi ñuy waaj mbale mi am na ay barab yoo xamante ni dañ fa daan dem di ko waajale mbale mi di fa ànd ak mbokki taalibe yi di dem di seeti daayira yi di fa waxtaan ngir euh, gën a jekku mbale mi jekku yin woo xamante ne nii euh, dina kowe suñ njort kowe njorta sëñ bi ndax mën nga ñoo xamal bërëb yi nga xamante ni jot nañ faa dem ak it la nga xam ne jot nañ ko faa tënk. dinañ ci sawar lool sëñ Modou ndax dañ ne naar ku ne ku ko woo ci góoxum soow yaa ko ci wax loo loolu day sawar la ndax xam naa ne fépp fu ñu doon dem ci mbooloo yu leen maa maa ñoom sëñ jili di leen woo téléphone fan lañ toll ndax euh, bi ñu jógee fii ñu ngi fi njëkk a jëm Touba Ndorong mm-hmm. station bu ñu fa ñewee jaar nañ fa waxtaan nañ fa ak ñoom waxtaan wu yiw waxtaan lu taalibe mm-hmm. waxtaan wu nit akub sëriñam mm-hmm. ndax boobaa sëñ Moussa sax jotoon nañu sëñ jili la yebaloon muy jëwri ni mbale mi boobu ñëwee waxtaan ak mbooloo mi dagg leen delloo leen ci sëriñ bi xamal leen li tax li tax liy jóg maanaam muy cadre boo xam ne liggéey boo xam ne muy liggéey bi kër Soxna Jaara liggéey bi ngir lu setal barabu Soxna Jaara moo tax te mbooloo fu mu nekk fu ne set da caa baax kon buñ jógee ne danoo war barab yi di ko di ci yëglu nit ñi pour nit ñi xam ne ñi ngi liggéeyal Soxna Jaara loolu moo waral loolu ban fa jógee ñu dali fa Mérina kër mère Fatma Ndoye bi ñu eggee dal fa waxtaan ak ñoom ci yoon wi mm-hmm. xamal leen li waral mbale mi mm-hmm. teg leen ci yoon yoonu mbale bi jàpp ñoom waxtaan ak ñoom wax dëgg ñu waxtaan fay lu yéem bañ joxe fa addi yu takku sax yoo xam ne ci mbale mi lépp ngir defar mbale mi rek ngeen mu rafet loolu yëpp bu ñu fa jógewaat ñu dellu dellusiwaat fii ñëw dem kër soxna nday pen mooy ndaw nday law bi boobu noonu seeni bu wañ soxna seeni bu wañ ñu delluwaat fi moom itam àgg toog fa waxtaan boobu moo sëñ Moussa ak sëñ Jili ñun ñëpp ànd hmm. ñun ñëpp bañ àggee dajaloo fa waxtaan fa ànd foxtaan fa mbokk taalibe yi daanu fa ñoom itam joxe addi ju doom boo xam ne ngir mbal ngir mbale mi rek mhm. lépp doole mbale mi moo ko waral mhm. ndax kenn ku fay def ku ne da ngaa wane ne man ñu bu doon tey yoon yi bu ñu koy def man maa war a defal lépp mhm. kon loolu lañ fa doon wane ndax ñoom saa suñu egsee dañuy wane ne ñoom fii ñoom mooy poroxaan ci ñoom ndax fi ñu war a commencé wan na tey ji poroxaan li jëm sétale kon bu ñu nekk wane na ñoom kon ñu waaji doon poroxaan bi kon ñoom dañ leen di sant buñ fa jógee ñu waaji faat del fi saari njugaar yi ak Saliou waa daayira Saliou Diouwaari la ak daayira Kibel ak daayira Parcelle ñoo juróomi daayira lañu dajaloo fa. ñu ànd man ak si Moussa ak ñoom si Baye Laat ñoom ñëpp ñu dajaloo fa te wane fa écran chel bi waa waa Saliou gépp bég. Mm-hmm. wax dëgg ni yàlla bañ fay jógee ñoom ñëpp dañoo bég sant suñu jëwriñ ji nag moom doolee ko sant nag di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ndax. ndax Baye Jili ku. fonk fonk mbooloo mi ko fonk nit la mhm. bu ñu duggee saara saara gépp dañoo jóg tàllal koy loxo ndax loolu lam lam fa ji la mhm. ak lam fa jëmbat la mhm. ndax moom demul saara rek ne sëtu sëñ Tuubaa rek la wane na sëtu sëñ Tuubaa daa dem saara wane ne ma donga la war naa ànd ak donga yi ànd leen jubanti leen seet ku war a ku dëng mu jubanti la seet ku jaaru ci yoon mu jaar la ci yoon loolu la nekkoon saara keroog bi ñu fa dajee waa saara gépp a jóg taxaw daan na ko ñun lépp ñu ngi sa gannaaw ñun yéex na noo def lii yéex na noo xam lii kon loolu ñu koy sante ndax loolu ak mbégte la ak ndax ànd ak dem ci barab wam ko fekki ñëpp di ko sant mhm. ñun laal ak cant yàlla lañ ko def mënoon nañu ñëw saara waa saara di ko xoole waaye dañoo ñëw ñu nañu moom ak taalibe lay wane wanewut sax ak sëriñ mhm. kon loolu ak cant yàlla te moom mënoon na wan fa ak sëriñ te wanewu ko mhm. kon loolu dañ ko koy ñaanale moom suñu borom guddal suñu fan wéral ko yokk wér gi ak man gi ba ba ànd gi ñu ànd ak moom suñu borom defar ko gën ko yokk jërëjëf euh, Serigne Mbacke kon xam naa loolu leer yu am am solo la te mooy ni nga xamante ne nii noonu la euh, Serigne bi doon waajale mbale mi ren nga xam ne euh, at mu jot rek ak ni nga xamante ni noonu la koy waajale te lépp tamit lim si bëgg mooy mbale mi gën a jëm kanam nga tax nga xam ne ren euh, mboolem daayira yi nga xamante ni dañoo nekk Kaolack organiser na leen ba fekk leen ci benn barab waxtaan ak ñoom euh, def fa projection wan leen mbala mi ak ni muy doxee ba ñi xamutoon mbala mi sax euh, xame nañ si mbala mi muy liggéey bu am am solo waaye Serigne Mbacke bala ñu laa bàyyi beneen soññe bi ñu bëgg nga soññe ko mooy ñi nga xamante ni dañoo yor biis yi. ndax bokk nga si eh, ñi yor biis yi ban soññe ngay soññ ñi nga xamante ne nii eh, dañ leen a jox ay biis ñu nekk si ay responsabilité waaw loolu day danañ ko mën a wax lu bëree bëri ndax mbiru mi daa mel ne kon da ngaa woote ne nañ ñëpp defar mhm. ndax man mii ciy jëwri ni biis yi ci la bokk mhm. kon maanaam képp kuñ jox biis ku ne na nga sàlloon ne tey bu fi sëñ bu tey boo gisoon sëñ Moussa war ngaa mën a jubanti bis bi teg leen ci yoon ndax ay taalibe boo leen di yóbbu ci eh, yóbbu ci lu mel selal teg ci yoon yi xam ne lii mooy yoonu sëñ Tuubaa ndax yoonu soxna jaara lañ dëgmal te soxna jaara li lii mu am ci faneer faneer ak ñett la ko am kon am na ci jigéen ñoo xam ne bu ñu la ko am na ci ñu ci mbooloo moom bu ñu leen ne soxna jaara yéen a ko ma kon ko gëm kon war na noo xam ne kuy jóg te muy jigéen war na muy dem ci soxna jaara sol lu yiw mhm. sol lu tegee ci yoon mhm. muy góor kuy dem ci soxna jaara war nga sol sol yëre yu baax yoo xam ne da xam ne da ngay liggéey soxna jaara mhm. waaye damay liggéey soxna jaara tax seet sagar yi gën a seet si yëre nga sol ko mbaa nga sol mbubb moo xam ne daa xotti sa yaram fa ne muy feeñ loolu amut njariñ ci liggéey soxna jaara yëre yi liggéey yi liggéey ñoo ko liggéey te Serigne Touba sàkkal nañu ay yëri yoo xam ne du jeex mukk mhm. buñ ci xaral tey bu saa ñoom bu ko gën kon saa booy dem na a géet seet sa taat boo xam gën a rafet nga sol ko mhm. wan ne liggéey soxna jaaram naa yoon wi ñu am ki ko am ki ko am lim daj bañ am ko kon ñun war nañ ko ko njukkal mhm. kon yëri yi ñuy denc amul benn njariñ niñ ci génne sol ci wan kon kii ñuy fekki li ñu am moo ñu ko defal te ñun amul lu dul soxna jaara ak Serigne Touba kon loolu ñun na noo a fop fonkaat suñu bopp fonkaat suñu colaat fonkaat suñu yére fonkaat biis ne

ndax bi ñu ko waree ren jii moo waral li li li fi génn lépp génn fi ndax dañ daan toog fii di ko jaxtu di ko waxtaane kon demuñ lu demuñ ci presse demuñ fenn ci kër gi lañ toog lii fekk ñu fi yëpp ngir liggéey Serigne Touba ak Soxna Jaara kon nag képp kuñ jox oto na nga xam ne dañ laa jox ni nga ni nga war a respecté sa kër waaw mu ñu la joxoon xaalis nga dañ ko moomal ko sa bopp def ko sa poos ko fonke noonu ñu la ko joxee fonk doomu aadama yi indi xam ne ay nit doomu aadama la jox ay taalibe yi ngir ngi Jaara nga respecté leen soo duggee ci bi nga dugg waxtaan ak waxtaan wu yiw wu sell boo xam ne koo ëllëgee koo ci ne nañ dem mu dem hmm. waaye soo duggee ci bi bala ngaa wax ak oto yi leen yoo commencé leen euh, toroxal loolu amul benn njariñ hmm. te am na mag ñoo xam ne ku leen toroxal boo moytu da nga torox hmm. nga torox jox na ñoo xam ne kenn du leen toroxal kon képp ku jox oto ku ne na nga jox amul yar ami teggin am sutura hmm. nit bu amul yar amul teggi amul sutura dara amul dara ci moom loolu nag moo am solo ci oto yi oto yi daal képp ku ñu jox lii lañ la ñaan ngir Serigne Touba nga dimbali ñu ci waxtu yu ñu leen waxit six sept heures ji wax ngir yàlla nañ ko teel daje ndax kuy fa kuy seetali benn bis da nga war a mën a teel a jóg hmm. loolu la ñaan képp koo xam ne am nga oto maa hmm. jox nañ la oto nga yor ko nañ lay ñaan loolu nga Euh, bu déggee loolu xañ na dina gën a yokk passeefam rawatina nag teel a jóg ndax wax dëgg yàlla ñu jox la biis ba noppi ñi nga war a yëpp jëkkale si biis bi moom loolu ku nekk war na ko moytandiku waaye tamit bàyyi xel si euh, ñi nga xamante nii da nga leen dangay ànd ak ñoom ndax biis bu nekk am na emprunté waaye nag euh, sëriñ bi bëgg gu mu bëgg ñiy dem si mbala mi am mbégte am tawfeex moo tax ku nekk mu jël nit koo xamante nii jëwriñ yoo xam ne daf lay jox biis nga téyel ko sa bopp nga xam ne bis boobu emprunté ba du su amu yoon waaye yow yaay lijjanti biis ba mboolem loo xamante ni daf saa war a am yow yaa koy yaa koy lijjanti sa bopp kon loolu ku nekk war na see bàyyi xel kon mbokk yi mu nekkoon seen émission waajtaayu mbalem poroxaan fii si kër sëñ Moustapha Mbacke Abbas ñu àndoon si ak euh, Serigne Mbacke gay ak Baye Abdou jóob ak jëwriñ Pape Seck Euh, di ñaanal euh, Serigne Mountakha Mbacké suñu borom yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko te kattanal ko ba yéenam yëpp mën koo matale si barke Cheikhul Khadim di ñaanal bu baax Serigne Moustapha Mbacké Abbas suñ borom yàlla ko tawfeex ak taysiir ay liggéeyam ay naalam mu mën koo matale si barke Serigne Touba waaye noonu lañ koy ñaanal bu baax Serigne Djili Mbacké di ko ñaanal suñ borom yàlla defal ko tawfeex ak taysiir ndax moom daa nekk jëruñ joo xamante ni day liggéey lépp ba mu jag mu jiital donga yi nag mu mel ni donga yi ñoom ñoo def te fekk moom moo liggéey lépp kon ñu ngi koy ñaanal suñ borom yàlla gën koo kattanal gën koo defal tawfeex

barakaatu